Bienvenue sur Salam Vision. ñaar xam naa bis buñ ma vaaree sama njaboot ñàkk ma xamal la sama xamal la sama njaboot ñàkk ñàkk ma maa dul toog <laughs> xam nga tey dafa am laaw ni Paco ma daree àdduna jaralu ma ko ci kaw suuf <laughs> ndax gis nga yàlla <laughs> hmm. yow sëriñ ma di sunu borom gis nga ñaar dafa am hmm. borom may borom mooy hmm. ki yàlla may yàlla may na ko muy gis waaye gis nga kala may bu ko neexee mu bàyyi ba une minute des yi mu soppi ko teg fa leneen parce que moo ko moom di léegi man pour pour ma téye sama bopp damay jis li may gis woo Paco ndànk Paco mu ne man loolu man gis naa ci match bi ndànkam waaye léegi bu amee Paco moom mën na ko nettali keneen ju jugul ca kaw mais pas suñ nga dëkk ko micro mu diw mooy gagné loolu ñime yàlla mënu ko weesu parce que bu dee da nga koy def ngir buzz ñaar mooy am da ngay tenter mu jàll wala nga tenter mu échec te nag da nga ci gis ku ñàkk jom koo xam ne day échec mu taxaw layal ko lay goo xam ni ni sarax ba lañ deful waaye léegi yow ba ngay wax te defaguñu sarax jarul comme yow xam nga ni défaite bi sarax mën na koo téye wala victoire bi sarax mën na ko téye yow nga taxaw ni victoire day am ñu toog bi ci ngay xam ni Sénégal barke alxuraanul karim am na ci ñoo xam ni non gàcce du leen rey Pago Pago bu leen gàcce doon rey barke Seyduna Muhammad bis boobu nañ toog ñetti far ñu naan sëriñ ba vraiment ah bien sûr dafa yéeme dafa yéeme macha allah. macha léegi nag ñu ngay dem ca coupe du monde foofee ca diwaanu Qatar ah, euh, ñu ngi dem sans Sadio Mané coow li nag bëri na euh, Sadio Mané yàlla na ko yàlla yëkkati mu taneeg jàmm ndokku yàlla moom fu nekk lay lay jugee waaye coow li ñii naan dañ ko dañ ko def maa mën ñii dañ ko lii euh, en tant que koo xam ne suñu borom mel na la ci wàllu xam-xam noonu Sadio Mané moom dañ ko njabar wala. xam ñaar dafa mat a bàyyi xel hmm. Sadio Mané ba muy saajo maane ba tey mhm. jaar fa mu jaar fu ne football fa xamuloo ko mhm. ba dégg Sadio Mané ngi toj àdduna nga ni xam nga Sadio Mané waaye léegi da ngaa yaakaar Sadio Mané moom dañ koo bootee soleil yow turu Sadio Mané bi ngay dégg Sadio Mané Coupe d'Afrique Sadio Mané Sadio Mané Sadio Mané tey nga jàpp ni kooku dañuy jeg ñu naan njabar yi ñàkk fee te sëriñ bi naan sax dañ koo njabar moom ci boppam moom la njabar gën a jàpp ndax képp koo dégg lu yëngu nga ne dañ waa njabar la njabar mm. parce que li nekkul ci yow rek mënoo koo génne il faut nit ñi bàyyi xel loolu cat nag dañu wax ni amul ku mu bàyyi ci kaw suuf mhm. mën nga ko jàppee loolu ndax tey képp kuy dox di nooyi di avancé te boo xoolee Sadio Mané ni mel Sénégal nga xam ni Sadio maane par exemple làmmiñ bu ko tuddul amul ci kaw suuf léegi da xool actuellement bu ñuy xool ci lu danger dañ naan cat moo sonal Sadio Mané te cat kum dul jàpp amul ci kaw suuf xam kan la kan cat dul jàpp mooy kii tëju ci saal bi nii du génn ku génnul kenn xoolul la ci biti boo solee yëre kenn xamul boo téyee bal kenn xamul kooku cat du la jàpp ndax yaa ngi muccal sa bopp mm. waaye kuy paas di dugal di def lépp cat mun laa bàyyi ndax Sadio Mané làmmiñu Sénégal bi yëpp koy tudd ak àdduna ak lépp kon dañuy ñaan suñu borom mu muccal ko yàlla aaral ko boppam ndax yàlla moom moo ko aar nag ba ngay dégg Sadio Mané de mm. te moo koy aar ci te nga xam ne defu ko sax yàlla nam mu lu tax defu ko ci moom nañ ko jàppee rek moo gën a simple. waaw nam loolu fu mu ne nii nag war nañ football o Hollande suñu premier match Ah, eh, xam naa ne suñu borom am na lu mu la jox wax ma la nga joxe score waaye war nga ñoo wax lan la ñu war a def. xam nga Sénégal dafa Sénégal dëkk bu dëkk dàq ko xam nga Pogo xam la ma Sénégal dëkk dàq ko yow président de la république déjà mu nga fa. dégg nga wax ministre des sports mu nga fa te xoola fot am loo xam ne di mbiru baatin nga ni yow da koo war a def ci suuf man li ma d'accord man su ma koy def mën naa koo def ci suuf ngir yàlla rek tax. waaye des fois nga dégg ci yoo xam ne yow da ngay toog di ree te des fois nga dégg ci yoo xam ne yàlla mi ñu tiim équipe bu ko defoon dina umu ba koy parce que am na ci yenn yoo xam ne ci xel sax nangu ko am nga droit nag yow Paco yàlla xam na ko ak yonent bi xam ne lii lu baax la nga génne ko yéene ko ndax nit ki du lu ngay yéene lépp la yàlla di nangu te ñaan yi sarax yéene la xanaa xama loolu maanaam sarax mu ngi mel ni tey ki temps bi nga war a mën a toog ñaanal ko nit ki nga xam saraxam génneel ko ko yéene ko yàlla yàlla nangu ñaan boobu loolu mooy sarax sa veut dire mais dañ ci dégg yoo xam ne yow sa bopp da xam ne lii àndut ak football bokkul ci football waxuma nag mystique amul ci football am na ci football waaye jàppal ni Sénégal ñiy ñaanal équipe baa ngi ñaan de te yàlla mi ñu tim kenn gisu leen. ah waaye gars woo. ah gars yi tamit ñoom kenn gën leen dëgër fit de xaalis a neex. xam nga ki naan dañ maa war a woo <laughs> ki naan ki naan dañ maa war a woo waa déet parce que ki naan dañ maa war a woo te jàpp na ne buñ ko woon at moom ceebam niin est-ce que xam nga ni gis nga soow mi soow mu sedd mi ak euh, ganaar yi ñuy saaf moo sonal sëriñ ci rek léegi bu ganaar yi commencé wàññeeku rek fit bi day dem parce que da ngay jàpp ni ganaar yi bu commencé wàññi yaa ngi en danger loolu lay problème bi mais parce que bu fekkee suñu borom nag dimbali na la am na loo xam ne jomb ngaa toog sax ci caméra di ko wax yàlla xam na ko parce que tey boo toogee naan dañ ma woo kii soxla ñu ko kay pour ñu jox ko moo tax mais bu dee Sénégal la ñor mais pourquoi pas bu loo war a génnee nga ne am nga ko te da ngay gis ku ciy bàkkoo ba pare naan nañ ma jox su def sarax bi yow kay bu dee Sénégal ñor na la demal génne rek jarul sax pako di ko yëg ndax li def te yàlla rek tax yàlla nga bëgg mu gis ko di kon c'est pas la peine dama Thank you.